nga ni rek euh, moo di tawi euh, xew-xew bi nga xamante ni le président de la république euh, monsieur Macky Sall son excellence tey mu def message à la nation tey ci lundi bi 3 juillet ci sori mbokk téléspectateurs yi dañuy dem directement ca bërëb bu sell ba ci Tivaouane fekk fekk nga xam ne moo di oustaz Iran Ndaw mu nuyoo ginnaaw ñuy balonte moom ak nag ci tabas bi ginnaaw ñuy dugg ci laaj ak tont bi oustaz ñu ngi lay wax salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ ñu ngi alhamdulilah. tabaski bi di leen baal àq di ñaan yàlla nañ ko fekkee at bëri. amiin yaa rabal alamin. yàlla may ñu jàmm may salaam. may ñu lépp. yaa rabal alamin. waaw tabaarakallahu loolu rek lañ doon wax. alhamdulilah waaw kay. tabarkalla oustaz yaakaar naa ni message bi euh, dafa wàccandoo waaye ginnaaw si rek xam naa ni ñun sax su boppam ñoo la woo directement jamono ji ginnaaw ba nga xamante ni président de la république euh, son excellence Macky Sall def na li nga xam ne rek muy message à la nation maanaam euh, yëkkatee kàddu jëmale ko ci askan réewum Sénégal ginnaaw rek ba mu baalonteeg ñëpp àq nag waaye tamit njaal ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ginnaaw ci mois de juin bi nga xam ni jóge nañ ci oustaz mu mel ni indi woon na ay polémique yu bare ci diggante troisième mandat waaye président ginnaaw si yëkkati na euh, tey jii euh, daanaka ba vingt jotee euh, xamal nag askan réewum Sénégal nii ci boppam moom ci boppam du mujj présenté li nga xamante ni maanaam nekk candidat candidat en 2024 oustaz kaddu yi nekkoon na lu bëri dina ko def wala du ko def waaye nag président boobu ba léegi tey la ci yëkkati xamal nag askan bi dootu ko def ginnaaw nag dina ñoo ngi xaarandi beneen président en 2025 kon donc oustaz Iran Ndao lan nga maanaam bala message bi wàcce ni wala nga dégg ko ni suñuy kaddu lan la la def ndax xaare woon nga ko fii waaw xam nga man xaare woon naa ko fi. Mhm. li tax ma xaar ko fi mooy kenn mësul dégg ma wax ci. dëgg la. kenn mësul dégg ma wax ci ndax ndey mbir li waxul. Mhm, mhm. gannaaw moom mi nga xam ne moo waxoon. di waxoon waxaategul leneen. jarul yàkkamti niñ ko topp rek ba xam lu muy wax. léegi da yàlla dogal na nag wax na. noonu na du def du du du du du du présenté euh, troisième mandat mhm. léegi kay du ko def jeex na d'accord waaw mhm. euh, loolu kay moo gën d'accord euh, xam nga Sénégal mhm. dafa am na mu bindoo ñoom dañuy coow di coow di coow ci ki tax ñuy coow waxagul dara su fekkoon ne président Macky dafa wax ne waaw ah man kat damay présenté su boobaa na coow li effectivement waaw waxul dara dara dara hmm. kenn mënu ko condamné ci dara nag kenn hmm. mënu ko condamné ci dara ci loolu hmm. mais wax na wala waxul moom moom danaan man daal sama wax bu jotee danaa wax waaw la nag xaw ma waaye nag bu wax bu jotee danaa wax waaw wax jot na d'accord ñu doog a wax waaw léegi nag ci waxam nag la ñuy tënk la ñuy tënk waxoon na ni itam ne <laughs> ne bu ngeen ma neexalee waaw boo leen ma <laughs> ñaanee ci njëkk ma ñaanee waaye bu ngeen forcé ma forcé waaw waaw day doy xam nga buur moom hmm. buur buur kenn du ko forcé boo ko forcé na mu forcé bu forcé hmm. ñaari force yi dafa indi yàq-yàq yu bëri dëgg la dëgg waaw hmm. day indi ñaari yàq-yàq yu bëri moo tax daal ah ñaan nañ ko ko ñun de ñaanoon nañ suñu bopp waaw eh, ñaanoon nañ ko suñ ne daal may ñu ko si njëkk teraanga may nañu ko si njëkk teraanga alhamdulilah rabbil alamin mhm. waa kay oustaz mu mu mel nii moom nee na ginnaaw partem bi nga xamante ni tey euh, ñoon àndoon ak moom muy waa APR moo xam sax Benno Bokk Yaakaar moo xam nee na ñu ci bëri dañ ko sollicité euh, ginnaaw si rek pour rek mu defaat li nga xam ne rek maanaam 2024 euh, mu présenté wu waaye nee na moom dafa jël décision bi nga xam ni moom xool na segg seggaan xool moom moo wax ci bopp moo jël décision ne dootul def oustaz mu mel ni tamit wax na ci stabilité réew mi Sénégal ginnaaw si rek moo ngi bañ yenn yëngu-yëngu waaye xool tolluwaayu Sénégal fi mu toll ndax Sénégal fu mu nekk jaxasoo na oustaz ndax euh, daanaka mi mbir mi fi mu toll nii euh, xel yi vraiment war na mën a del gën a mën a del si waat ñu mën a defaraat Sénégal lu ëllëg. Sénégal lu ëllëg mën nañ koo defar gis nga président Macky. ñi mm-hmm. sa ginnaaw bu ñu coowee ci yow mi ci kanam nga xam ne coow li du la jëriñ. Mm-hmm. du jëriñ sa réew da ngay bañ. dëgg la da ngay bañ coow le mm-hmm. parce que euh, coow li du ko jëriñ. waaw. kon nag bu fekkente ne ñoom nee nañ ko da ngay def mu seet seetaatal seetaatal ba nga xam ne réew mi fi mu jaxasoo na. Mm-hmm, bien sûr réew mi jaxasoo na walaay walaay yàqu yi bëri na. yi mm-hmm. di mm-hmm. waaye nag ginnaaw seet na nag ne si loolu ci bëgg sa réew la bokk si bëgg sa réew la bokk. bien sûr. bëgg sa réew dëgg la bokk. parce que seen ne man kat lii nii bëgg naa ko. waaye su ma ko amee mën naa am bakkan yu gën a yu gën a rot. walaay. naa ko naa ko bàyyi mu mhm. bàyyi mu bàyyi loola mhm. loolu mu loolu bëgg réew la bokk ci bëgg sa réew la bokk macha allah waaw mhm. bëgg la bokk waaw tabarkàlla waaw kay oustaz xam naa duñu la téye ci ligne bi lu yàgg yaakaar naa ne tey lii moo nekkoon li nga xam ne actualité waaye itam fi ma jëmaat ba léegi rek oustaz mu mel ni euh, Sénégal démb Sénégal lu démb euh, ba benn jamono jaxasoo bi am na ginnaaw si li yaakaar naa ni war nañu mën a euh, juralaat Sénégal delluwaat Sénégal lu ndax jàmm ma si la lépp xaj oustaz xam naa ne foofu la ñuy daanelee kàddu gi. Euh, jàmm ci la lépp xaj. Mhm. suñu suñu suñu wuutee jàmm. Mhm. yàlla may ñu jàmm. Mhm. suñu bëggul jàmm yàlla du ñu ko may. macha allah gannaaw bëgg nañu ko nag ba wuut ko nag. ah nañ ko nag dina daal li des. waaw mooy ni taxaw liggéey. tabarkalla. jéem a réparé li yàqu. jéem a defaraat li yàqu. avancé na suñu suñu suñu réew. macha allah boo defee ñëpp nañ liggéey. Mm-hmm. ñëpp euh, parce que ñu bañ koo coow rek coow coow coow. Mm-hmm. am am na jeex na. jeex na wallaahi ndeysaan li am am am na na jeex li des kay muy liggéey. Mm-hmm. gis nga bu ñu takkoo liggéey rek. wallaahi léegi réew mi suqaleem. alhamdulilah. bu ñu takkoo liggéey rek léegi réew mi suqaleem. alhamdulilah parce que jigéen ak xale. ñoom ñoo mën a suqali réew. bu ñu takkoo ba mu leen rek léegi réew mi dem. alhamdulilah. ko liggéey rek. tabarkalla bàyyi coow li. coow li moom amatul njëriñ fi ne jeex na. jeex na vraiment da da ngay da ngay da ngay jël troisième mandat wala doo dem troisième mandat. waaw waaw ma ca. <laughs> waaw waaw ah, jeex na ah. de. a <laughs> parce que am na bët bu ñu daan xool wax nga dëgg. waaw. réew mhm. teraanga la. waaw. réew mhm. jàmm la. Mhm. loolu lépp dañ ko daan xool ci Sénégal waaye dem nañ ba ne réew agresseur lañ leen jàppee réew agresseur waaw mu doy waar lu doy waar réew moo xam ne dañuy reyante dañuy rey nit kenn xamul lan la waaw loolu nag mën nañ ko réparé waat parce que yàggul waaw yàggul alhamdulilah ko réparé waat waaw nañ ko nañ nañ leen takku rek taxaw macha allah defaraat ko moo gën jë jërëjëf oustaz mu mel nii dafa mel ni moom dafa de mel ni lu dégg sa message ndax yow da nga koo ñaan ci njëkk rek da dama ragal est ce que du ñaan njëkk boobu sax a tax mu mu gën cee taxaw oustaz <laughs> ah, daal xam naa ne ñaan naa ko ci njëkk <laughs> te xam nga xam nga itam xam nga sa njiit wallaay waaw euh, njiit du xeeb benn baat waaw dëgg la wallaay ndeysaan du xeeb mhm, mhm. eh, da nga koy gis a gis ne ci ci kaw lay xool fekk du xool ci kaw kaw ak suuf lay boolee xool wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan parce que wax mooy dëgg mhm, bu leen ma forcé bu leen ma forcé da may ñaan ci njëkk ak teraanga wallaay ndeysaan ko may nañu ko njëkk teraanga li des nag muy liggéey waaw li liggéey rek moo des liggéey rek moo des tabarkalla am na solo gé li mu ñaan noonu daal ni li ñu santoon daal def nañ ko ko ñaan nañ ko ko ci njëkk ak may nañu ko njëkk ak li ci des nag beneen président lépp ñu ñu liggéey rek ñu liggéey rek wallaay yàlla indi bu ñëwee rek na liggéey rek. tabarkalla waaw bañu coow bañu allah mbokku téléspectateurs yi oustaz Iran Ndao yaakaar naa sax moment bi vraiment di jégaluwaat ci dérangement yi euh, en lien ak téléphonique directement ca di euh, bërëb bu sell ba euh, ñu di ko santaat bu baax vraiment ci disponibilité bi nga xam ni saa suñ ko yittewoo rek mu may ñu li ni mel oustaz jàmm ji info ngi lay jaajëfalaat tamit bu baax a baax nga yàgg itam taxaw ci réew mi di waxtaan ci réew mi di delloo si askan wi oustaz ñu ngi lay santaat di la gërëm waaw kay maa ngi leen sant di leen gërëm. Euh, di leen ndokkeel di ko di di di jaale président de la république ñu ngi koy jaale. di euh, nga xam ne gaañu nañ ci ñëpp ñu ngi ko koy jaalee alhamdulilah di ko baalu àq ci tabaski bi. alhamdulilah di ko baalu àq itam lépp lépp daal. alhamdulilah euh, lim ñu def delloo nañ ko ko. lépp delloo nañ ko ko. alhamdulilah waaw ñu ngi koy baalu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi rek liaison téléphonique direct fële ci bërëb bu sell bi di Tivaouane oustaz Iran Ndao la ñu doon jokkal noonu waaye itam li ñu doon waxtaanee nag li aju ci réew mi rawati nag message à la nation bi nga xam ni président Macky Sall na ko tey 3 juillet 2023 euh, nag di fàttali rek li nga xamante rek mu di si wàllum troisième mandat candidature am xamal ni nag ginnaaw si moom li mu jàpp rek maanaam joxe na kàddoom ni moom bu présenté kon nag loolu la ñu doon waxtaan ak oustaz tamit mu indi ci ay xalaat yu rafet jëmale ko tamit ci askan wi oustaz Iran Ndao kon ñu ngi koy jaajëfalaat